avant ñuy jaxas suñu euh, suñu budget bi euh, waxoon nañ ne ñun dañoo war a suñu solidarité envers le peuple gambien ndax Sénégal ak Banjul benn peuple la du ñaari peuple li leen dal ñaar fukki at ñaar gën di nekk fi leen fi leen di leen noot ñu di ko muñ ñuy daw génn réew mi dem dëkki Amérique ñuy daw ñëw Sénégal ñu tasaaroo ci biir àddina bi di dund lu métti seen ndey seen bàyyi ku wax ñu jàpp rey seen càmm ni ko wax ñu jàpp rey ba ci sénégalais ak sénégalais ñu jàpp di rey kenn xamuñu loolu yëpp ñu di ko noppi wax ko wax dee ñu xëy bés yàlla ommatal leen ni ku baax baro comme ñoom ni ko waxee baro ñoo gañe élection yi ñoom waa Gàmbi ala euh, Yaya Jammeh jël téléphone am wax ne man de euh, maa ngi lay félicité toog ba mu neexaat ko mu ëlbatiku ne moom Baro gagné wu ko parce que yi nii ak naa ak nele may wax waa Gàmbi ne leen nañ dal te muñ rek yàlla ñëpp la fi nekkal li yàlla yàlla indilee Baro ba Baro mun a gagné élection yi noonu la li yàlla tegalee Baro ci kaw mu toog ñu tàcc ko te man gëm naa ne loolu dina am te dara du tuuru bal du tàkk dara du jóg ndax yàlla àndut ak kuy tooñ yàlla du ànd ak kuy tooñ ndax Yaya Jammeh li mu def dafa yabaate dong moo tax mu def ko.

Yaya Jammeh amul lu mu yakul président Sall tey moom El Hadj su amé tey ku muy faral yaakaar naa ne peuple bandil wa euh, Gambien bi la o euh, Gambien bi la wara a faral ndax le président de la République s'est déjà prononcé le président Sall s'est déjà prononcé sur la question suñu ministre des affaires étrangères il s'est déjà prononcé sur la question dafa tam nak loi Sénégal wax lu lu président wax mu teg ko teg ko fee waye réewandeem gi ak yak bi mu yàq ak yabaate bi mu yabaate moom na ko yemale te baye jambour yalla yi ñu lu gën seen problème ndax ñoom ñoom borom dëgg mën nañoo jooyal seen dëgg ku leen ko mën a jooyle jooyle leen ko ku leen ko mën a jooyle ñu bàyyi leen ko waaye dem di immiscé wu ci problème waa Banjul bàyyi wax naan ay li mu ci wax sa dafa bëri tax man amul loo xam ne bëgguma cee jaar ndax man damay limité samay wax ndax wax dafa nooy te neex soo koy wax wax du la ne mukk bàyyi ma yaay xam ne wax ji ëpp na bëri na nga noppi wax dafa am fu muy yem mais bu bëggee wax Sénégal ba Sénégal jeex mu dem bandil wax ba wax wax jeex dina xamne liko wa senegal di mu ñëw wa bandil duñ ko ci mu ñu ndax man kat wax deug fa yalla lima setan ci Facebook bi lima setan ci réseau yi lima setan ci AZ ak ci point net su fekkete amna ay mbokk man suma dama sama samay rew mi daw ndax yi ñu ñaaw ñu yàq ko ko te moko tek bopam parce que bu meloon la morona mel wala mu and fa sa àddina bi mu ànd et puis ni ma gëna metti mu na sen yaawu duñ tous moom respecté wul benn institution ku respecté wul nag sa institution réew taxaw di saaga sa président assemblée nationale di yàq sa président la république lu mel ne xamee ah? boo waxee da ngay respecté peuple gambien ñun duñ ko mën a gëm waaye dina xam ne li ko jikki Sénégal jikki ko ci Banjul waa Banjul ñoo ngi koy xaar mais léegi naa leen ba waa Banjul bu ne xuloo bu ne xeex dal leen te toog te muñ te xam ne li ngeen bëgg yàlla dina leen ko may ndax yàlla moo leen amatal bari indil leen ko mu gagné élection yi moom nag comme waxkat la na continuer di wax rek te nag gis nga lu waxee ba réew mi bëgg a tàkk mu jóg taxaw benn bés ngay xëy cëppéeru baa ñu ne leen baal leen ma àq bés du man maa leen ko yéen waa bandi xëy taxaw ne baal leen ma àq loo xamante ne waxoon naa ko ci erreur laa ko waxoon dama ko la woon waaye waaye du man ndax moom noonu la mel il est versatile léegi ne yéen ngeen bañ a déglu ay waxam kii jàtta sax taxaw di waxal di saaga ndax xool leen ko nag ci man lii nag moo war a tax waa àddina bi xam ne ba ma waxee caga bi ci assemblée nationale ñëpp a ko doon dégg lu mel noonu nag wax na ko keneen ak keneen avant man ci assemblée nationale yi nga xam ne ñoo ma jiitu léegi nag tarxiis na nag uti Banjul may wax mu naan CEDEAO duñ tus yaaya Jammeh moom xam nañ ni mu moom xam ne ñëpp ni mu demee moom lépp lu mu def rek xaalis a tax mu def ko xaalis lañ ko jox mu lekk xaalis ba taxaw na défendre la cause d'un perdant on ne peut pas défendre le diable Yaya Jammeh di ku ñuy défendre ndax Yaya Jammeh a causé tellement de tort au peuple gambien que ñoom mënatuñ dara bëggatuñ dara dee moo leen gënal dund waaye nag comme ñoom ay jullit lañ dañuy toog rek xaar yàlla te xam na yàlla li mu tracé mu ci dara du El Hadj Diouf mooy régler problème Banjul du man Aïssata Diouf man maa régler problème Banjul mais dafa wax en tant que député du peuple ma wax en tant que député du peuple loolu rek la wax tamit en tant que jigéen di wax ne waa Banjul am na lu ñuy def rek ñoom ñoo cay ñoo ñooy leneen mu na leen ci fekk te loolu kenn ñaanu ko yàlla nañ toog mu dal xaar li nga xamante moom la communauté internationale bi tranché ak li CEDEAO tranché ak li yàlla tranché seen aada faju ñu teg kii soxla waaye bu toogee te internet bi naan samay new ci baro kuy baro lu ne mu yekk ko baro fan la ko teg baro est une institution actuellement au moment où je où est un c'est le président de la kon na moom tamit institution la daf ko war a respecté mu wax mu naan kuy baro moom du dugul yoonam nekk li muy wax la damaa bëgg waa Banjul ak waa adduna bi xam ne boppam la ko waxal mais waxaluñu ko ñun waa assemblée nationale Sénégal boppam la ko waxal waaye waxu ko ci turu waa Sénégal boppam la ko waxal waaye dina xam ne billaay basi góor a koy bay du dugg na fu mat a dugg dina xam ne waa Banjul ko dàq waxtam ñu ko gën a yàqu ndax li mu dégg dana jar ko ci àdduna ma ne kii su ma demoon sama dugg ci géej gi lii dafa ñaaw lii fa ñaaw ñu teel lan wax da saaga ay ndey saaga yoo xamante ne pour lan ndax dugg la sa yoon nekkul ndax xaalis man de xaalis mu dox ma xaalis mu dem jënd immeuble jarlu ma lii xaalis bu ñu may jox rek pour ma dem jënd immeuble mosu am immeuble lu leen nga dugg ca boo jógee ci programme Yaya Jammeh yaa ngi timis ñu jox la xaalis nga dem jënd immeuble toog di yaataar yow boo jógee timis yaa ngi boo faralee opposition te bu subaa nga faral nga faral pouvoir yow kenn xamul ban façon ni nga ndax xaas rek xaas moo ko jaral yi saaga man de kii barke Serigne Touba bëggatuma bëgguma bokk ak moom dara heureusement que bokkuñ dara sax ñoo bokk dara sax parce que ñoom ñoo bokk dëkk Sénégal ñoo bokk sant bokk Siin ak Saalum mais kii barke Serigne Touba kii kii mi ngi tooñ kii kii kii kii xam ko sax ci waam parce que saaga yi ñu ko saaga moo ko yóbbee boppam man de seq maa mu dara mais saaga yi métti na ma xam nga dama métti ma mooy dañ ko taaga di ko saaga publiquement parce que moo dugg lu yoonam nekkul moo moo dugg ci réew jàmm di wax lu mu war wax ñu saaga ko yi nag ku ne neex la ci xol rek bi laa da ngaa waaye nag moom na xam ne mënut a jaxas Sénégal ak Banjul Sénégal ak Banjul benn peuple lañ di ñu ñaar tey Banjul fa dara amoon tey Sénégal yi bëri nañ ci loolu bu Sénégal amoon fii tey problème Gambie yooyu bëri nañ ci loolu kon nag ñun jàmm la ñu ñaan ci réew moom yàlla na fa yàlla des ci jàmm jàmm yàlla na fa desi yàlla na jeexa ci jàmm te yaayaa jàmm xam ne ah buur ak président du benn mbirum buur moo fi jeex Banjul yoruñu royaume euh, euh, kii lañ yore woon euh, nu mu tudd yoruñu royaume président moo fa nekkoon président na élection moo koy yëgal moo koy daane daane na ko na gëm yàlla te dem toogi te bàyyi xale bii mu ñëw toog loolooy dëgg mais leneen li muy def yëpp et puis moom man su ma doon moom je devais il devait par la par la par la grande porte bu fekkee dafa dem élection daan dafa war a jaar par la grande porte mais du tuutil boppam tuuti weesuwul li tuuti na yabaata moom yaayaa jàmme ñàkk na fayda te yabaata waaye bii moom man gëm naa du jàll